you. mbokk internet yi ñu ngi leen di nuyu di leen dalal ci biir limametti.com di leen jaajëfal bu baax ci topp bi ngeen ñuy topp dañuy ñëwaat ak ci actualité xam ngeen ni problème bi nga xam ne moom moo liyee woon Yaa Awa Dieye ak ñi nga xam ne mooy waa 2STV fan yëpp police ginnaaw plainte bu ko El Hadj Ndiaye daal di woon porter plainte loolu nag mi ngi sababoom émission bi nga xam ne moom mooy célébrité et religion waa 2STV ne woon émission bi seen émission la seen concept la Yaa Awa daf ko jël daal ko yóbbu ne moom mooy TFM di ko fa leen métti ba ñu daal di attaqué ki nga xam ne moom mooy animatrice bi di Yaa Awa Dieng moom mu daal décider lâcher prise daal jël émission boobu tuddee ko yi nga xam ne doon na ko jot ci réseaux sociaux yi mu daal di jël émission bu tuddee ko ziar def fële nga xam ne moom mooy TFM waaye turu ziar boobu aussi daal dina indi problème parce ñi li nga xam ne ñoom ñooy waa Walfadjri yi ku ci mel ni ki nga xam ne moom mooy Sa Ndiogou daal di nay attaqué bu baax ki nga xam ne moom mooy Yaa Awa parce émission ziar boobu waa Walfadjri bi nga xam ne moom la am ak waa 2STV ci célébrité et religion daal dinay dal ci beneen problème bu lié émission bi nga xam ne moom mooy émission ziar parce que boobu aussi nee nañ nekkul émission ki nga xam ne moom mooy Sa Ndiogou mi ngi menacé animatrice bi di yaa awate wax ne dinañ dinañ ko porter plainte ci émission boobu nga xam ne jël na ko loolu nag nekkoon information boo xam ne am nañ ko ci émission bi nga xam ne moom mooy émission ziar remplacé woon émission bi nga xam ne moom mooy célébrité et religion bëri woon coow loolu ci diggante yaa awa ak waa 2STV léegi nag coow li ci diggante ya awa la